Tidiane Dieye que ça soit Amadou Ba Habib Sy Rose Wardini Anta Babacar Ngom ainsi de suite. Euh, bizarrement daal man li ma ci jaaxal. Mhm. Euh, liste yi ma gis nii daal euh, gisuma ci gisuma ci ku neutre. wala wala benn élément bu neutre wala deux may maanaam koo xam ni système et anti système. Mhm. wala sax ku neutre amu ci quoi. ci liste vingt candidats yi. parce que moi je je peux vous citer. douze noms yoo xam ni ce sont les candidats du système Khalifa Sall Karim Wade euh, bon Anta Babacar Ngom Idrissa Seck euh, Rose Wardini bon Amadou Ba Boun Abdallah Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Daouda Ndiaye Pape Djibril Fall jàpp ngeen li ma wax noonu uh-huh. à peu près ñooñu sont les candidats du système ñooñu soo moytul deuxième tour ñooy nar a ànd les candidats de l'anti-système mooy euh, basiru Diomaye Faye Euh, euh, Bassirou Diomaye bon y' a Habib Sy y' a Cheikh Tidiane euh, Mamadou Diabou y' a bon Amadou jaabu Pur ñooñu daal bëriwuñu quatre ñooy ñooy véritable anti-système bi. Hmm. moo yokk ci bon Thierno Alassane élément anti-système la Lamine Diallo élément anti-système la. Hmm. waaw ku ci neutre laa gisul quoi. ku ci neutre gisuma ko te wax dëgg fa la combat bi moom système anti système et puis ki ci ma tuddul mooy kii mbub ma euh, Serigne Serigne Mbub moom mën naa jàpp ni élément neutre la xam na lan moo tax. lu tax. Euh, bugguma ko tuumaal peut am na yéen ci réew mi defar ko dëgg. certes mhm. am na waaye nag euh, c'est un capitaliste moom moom. moom balaa ngaa laax jaay moom balaa moo laax jaay kenn day day laax lekk ce <laughs> sont mi la des intérêts personnels à sauvegarder d'abord genre yooyu ces investisseurs là même mu mënul jël réew mi sax dañuy dugg ci politique bi am benn poids politique pour mën a euh, gérer seeni intérêts man loolu laay soupçonné quoi mm-hmm. euh, parce que man affaire bi ku jàppul ci ko xeex bi ku ci jàppul rek man ku ci jàppul jàppul xoolal képp ku ci takkul rip ba ma ba ma gis ne yow takk takk nga ci répp man pour man tuer de l'autre camp soo neutre nag ma xam ne yow sa neutralité boobu da ngay sauver say intérêt bopp. ok looloo fi ne mais mais daal euh, euh, réew mi daal toll nañu foo xam ni euh, neutralité waru fay am. ma tëjee foofu soo ko bëggee ah, ah, bon avec Walfadjri ce qui s'est passé. non bon euh, avec Pape Ndiaye. voilà temps bi daf ñoo. daf ñoo Pape Ndiaye ce qui s'est passé Sidi Lamine Niass ne mérite pas ça n'a jamais collaboré avec des escrocs Pape Ndiaye dañ ko jàpp muy lijjanti ci benn juge dossier jàmbur lekk cinq cent mille francs c'est un escroc su fa newoon Sidi Lamine du ko fa teg. Euh, doomu Sidi bi na jël ay responsabilités y a un journaliste du nom de ah. Misatine mais c'est un gars boo xam ni moom ñëpp a xam ni neutralité la fay nekkee. Uh-huh. ku mel ni journaliste bu bu mel ni ni Misatine am na personnalité moom sax waa Pastef fi sax dañuy koy jàppee ni sax da leen compte non non il fait son boulot ku mel ni Misatine il peut jouer la neutralité li nga xam ne Walfadjri loolu la bëgg neutralité man dem naa fa di nuyoo. ba ma ko nuyoo sax fayuma kii na ma fay na ma mais sax il ne m'a même pas regardé mooy euh, bon bon ah, bi ma ko nuyoo hmm. ba may fay xooluma sax parce que moom xamul kenn kenn xamu ko moom ci loolu lay dox mais des gens comme ay euh, kii Sow euh, mooy Alioune waaw journaliste Alioune Sow ces opportunistes là ñëw xamuñu. di jàpp liggéey ku nekk sa position. non non bi. position bi position bi ñaar ñooñu dañu yàq ligne éditoriale Sidi Lamine. voilà je vois. ligne éditoriale Sidi Lamine euh, des escrocs des opportunistes <laughs> amuñu fa seen place. Sidi nanu dimbali doomu Sidi bi nanu dimbali Walfadjri c'est un patrimoine dama koy am wàll. Sidi sama kaamil sama kaamil Alxuraan bi ma sama sœur may. bi ma bi ma sama borom ne mooy sa seede yàgg Mbaye Ndiaye yóbbuwuma ko fenn fu dul Walfadjri ñooy wàccuwaayu alxuraan nanu ñu sauvegarder bijou boobu moo gën ku mel ni ku mel ni misaatin nuyu naa ko ba may fay sax ma man jàppewu ma ko mais dama jàpp ni bëggul xam kenn kenn xamu ko. ok jouer neutralité am quoi. Uh-huh. mais ku mel ni Alioune Sow mi laa suwee cette maison da koo suwee suwee. bëgguma ko wax ci wolof day ñaaw. dafa mm, jaru ko kay. dafa suuyee suuyee maanaam dem ci duus. déedéet jarul wax ci kii bi suuyee cette maison là. ne ko ne ñu dimbali doomu Sidy bi daal maa ngi koy lancer message boobu. Mm-hmm. am na droit ligne éditoriale bàyyam neutralité la Walfadjri c'est la maison de de de l'APR c'est la maison de Pastef c'est la maison de tout le monde. Mm-hmm. ku mel ni ku mel ni message tin Euh, mi ngi joué neutralité bi ñu soxla nan ko bàyyi mu déroulé loolu mais des opportunistes et des escrocs là leen gën a ci plateau yi. Jamra Kane waroon na waroon na avertir ay invité am que dina. invité ñu ngi yàq ligne éditoriale xamuma nag fu ñu leen xoj peut-être peut-être wala faj yi ñoom itam danoo sonn ci xeex bi dañ leen a xoj peut-être xamuñu mais ñu ngi wàcc ligne ñu ngi wàcc ligne éditoriale Sidi Lamine. te Sidi bàyyiwu fi lii man je veux être sama ñaan gi mooy fi ko Sidi bàyyi woon man yàlla naa bokk ci ñiy jël man je technicien en même temps industriel mais dafa mel ni communication laa dana bëgg sax mais est-ce que du ma mujj a jàng ji nekk journaliste sax quoi parce que man lii may def dafa la la communication j'aime bien euh, mais ku ni euh, ces escrocs là lekk xaalisu ba ñu condamné. voilà il a un casier waru fa su fa si di newoon dafa sax kii euh, maa ngi jégalu su fekkee ni. Euh, déporté naa waaye daal li ma indi mooy. complot d'état bii complot d'état ñoo ngi ko teg suuf ak fichier bi nan ko lijjanti. Mhm. te Macky na waxtaan ak gars yi man su fekkee joxe na réew mi ci jàmm euh, je serai son plus grand défenseur. Okay. parce que Macky moom heureusement ba il s'est arrangé ba gisuñu gisuñu luñ ko fi épinglé ministre bi la bàyyi ñuy signé di def lu la neex moom Macky Sall luñ ko mën a épinglé mais bon. ma Sall gérer dossier am yomb na na joxe réew mi ci jàmm rek li ci des ñu waxtaanee ko tag tag gaayam ñu fi def njomba yi nag ñu rëq ndig ñëpp loolu la réew mi laaj mais des élections transparentes de grâce monsieur le président organise nous ça si sinon du baax. leer laa wax. voilà merci beaucoup li borom gis wan koo wax fenn. di ñaan euh, ñu giseen te fi waat ci appel Seydina Limaamu bi su boobaa nag dañ ma may benn kii spécial xanaa. ah loolu kay loolu wax politique du wax kenn ci Seydina Limaamu laay wax ak ci Cheikhul Khadim. Mhm, incha allah dinaa tontu ak na ton ci Cheikhul Khadim moom gi mu moom alxuraan. te ci Seydina Limaamu waxam ju rëy gi bu fi wax nii dinaa jéem a expliquer doomu aadama yi mën a dem man a tey gi c'est aussi simple simple euh, yomb naa dégg trop. incha allah dinañ ci ñëw bu baax a baax maa ngi lay ñaanal balaa appel bi dinaa la fa ñaanal borom kër gu. <laughs> Euh, internet yi laa xamul euh, ak bëgg na bëgg naa daal yow ak sama bijou mi daal. Uh-huh. maa ngi koy ñaan sama borom. am na yitte yu ma yitteel lool ku may ñaan loo man su ma toogee ci internet yi ñu naan ma danoon soxla sama numéro pour ma ñaanal leen man man maa ngi